asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 31 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tamit fa mu xëy ñëw wala ku mu xëy séqal waxtaan mooy ka nga xam ne moo di biram ñi nga ma nga xam ne mooy manager Modou Lo ba pare nekk ab ensemble biram nag moom mu wax te la muy wax dal ci diggante Ama ak Modou moom daa mel ni xel mu ko dégg day boo amoon yaakaar ci combat bi daa mel ni sa yaakaar mu ngay commencé yàkke ko ndax nag na ak mbir yi ni muy doxee ni moom ah su continuer day pour combat boobu am moom nee na sens ya dootul bëri moom biram ñi ngi moo xëy tey wax mel ne ki noonu dana fi mu nekk nii moom bu fekkente ne li nga xam ne nii moom mooy coronavirus bi moom jóge wu fi wala boog jóge gu fi dana pour combat ba li nga xam ne tamit mooy wàllum couvre-feu mi moom bu fekkente dafa continuer li leer ba leer moom combat ba moom dana jafe lool fi mu nekk nii ngir nag mu sotti loolu mooy wax ki nga xam ne moo di biram ñi mu mel ne ku daan daal diggante Ama ak Modou moom ku koy xaar ah booye boo nga ñaan de ndax nag li biram wax moom daa mel ni dalalul am xel ci kaay bi nga xam ne moo di sunu làmb bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb am na koo xam ne moom dafa xëy yuuxu ba ñëpp dégg ko muy Mbaye Diouf situation bu difficile boo xam ne moom lay dund daal ci carrière u làmbam wala ci carrière sportif am moom la xëy di waxtaane ak yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu nu continue yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb doomu dàngu moom ne nañ depuis saison bi ubbee ba tey daal combat mu ngi ko të tëj moo tax yëglikaay bi samp ab laaj ci xalima ak Boubacar Niang di laaj ndax moom mbaa du loxo góosam bii nga xam ne moom lay dóore di ay kaw moo tax mbër yi di ko teggi loolu la gëstoom ka nga xam ne moo di Boubacar Niang la keneen koo xam ne ni moom ab xale la nekk ci olympique de Ngor ñu koy wax fëgala fëgala nag moom la mu xëy xam le daal ne na li leer ba leer daal bu fekkente ne am na mbër moo xam ne moom la préféré tànnal ko boppam ne na du kenn ku dul dumbul ma nga xam ne ni moo nekk ci écurie léegi mu nekk fa nga xam ne mooy ca réewam États-Unis loolu xale ba nga xam ne ni moo nekk ca écurie olympique de Ngor moo xëy tey ñëw wax nu ko ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb bu nu continuer nag dañ fay jóge dem fa nga xam ne moo di record record nag tey moom dañoo xëy gëstu ka nga xam ne nii moo di bombardier ba tey itam yëglikaay ba daal xamal nañu ne boo bëggee dégg-dégg nag bombardier la 4 avril 1995 la njëkk a takk ngemb bëri ci làmb ji ak mbëri mu ñu wax kat ki nga xam ne moo di Thiaw Thiengo dal di koy daan ba ni mu mujj a ci diggante ma ki nga xam ne nii moo di Eumeu Sène te Eumeu Sène daan ko nangu la nga xam ne moo di couronne roi des arènes ba loolu amoon le 28 juillet 2018 mu mel ni kon daal Bombardier yëglikaay bi ne na Bombardier na làmb ji keneen koo xam ne ni moom ab taxawaayam wala taxawaayu écurie moom yëglikaay bi ñëw na ci ci saison bi nga xam ne moom lañ suspendre nii mu mel ni ki nag nag coronavirus ba tax ñu pose làmb ji moom dégool di bàyyi booy ñang xëy na tey wax ci dana li leer ba leer daal ñëpp war a takk ngem yi fi mu nekk nii mbër képp kuy askanu làmb ñu jàkkaarloog li nga xam ne moo di covid 19 bi xeex ko ngir mu jóge fi loolu waxi dégool la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record waaye dañuy dellu sunu làmb moom am na mbër moo xam ne moom laata ni suspendre saison bi moom daa mel ni moom itam affaire am jotoon naa xaw a baax de ndax nag ay final yoo xam ne remporté na ko jël ko mu tollu ci ñett mu jot am lu toll ci ñetti millions ci xaalis muy caaka fay yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom andil nu ko mel na ki nag coronavirus bi moo tax ñu suspendre lépp luy dox ci àddina bi kon daal nu ñaan yàlla mi boroom kun fa yàkkoon coronavirus bi yàlla na dem te bàyyi nu fi yàlla ñu bokk ci ñu koy nattali barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag revue de ren bi tey ah tombeek euh, mardi 31 mars 2020 waa tey nag ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko saaku ci ñëpp tey nag ki ngeen gis tey ci journal bi di sunu làmb mu wax mooy Biram Ñingi Biram nag li mu xëy wax lenn la diggante mu Lo ak Ama daal moom ni mu ci waxee yaakaar naa ne dalalul xel ci ñi nga xam ne ñu doon xaar ko combat boobu parce que li ko a nag coronavirus bi yaa ngi dégg balaa sa cee mën a wax wala ñu ciy am xel wala nangam sangam lii daa jeex te wax na dëgg nag parce que olof ko wax fu ñuy feese kenn du fa nekk di fa jooy ak yaa ngi dégg kon defe naa tey balaa ñuy wax waxu combat Ama Baldé Modou Lo wala Siteu Papa Sow wala soq gàmmu gi ak wala beneen combat bu mu mën a doon rek wala Abdou Diouf Gris defe naa ak yeneen combat yi des mënuñoo lim général Malick ak ki nga xam moo fils de balle loolu lépp balaa ñu koo tal pour man rek il faut que ñu fexe ñaan yàlla li jóge fi su fi jógee ba pare nag ñuy doog a ñëw di wax waxi làmb ak leneen lu mel ni ki noonu ndax nag am na loo xam ne nii wér yaram la ñu wax la santé avant tout te moo gën a wóor ba tey journal record comme ni ngeen ko xamee tey ni ma leen ko waxee sànq ci Bombardier la xëy jàngat ko carrière carrière bi macha allah muy carrière bu ris yaa ngi dégg 4 avril 95 ba tey ñu ngi 2020 macha allah mu mel ni kon moom modèle la ci tey mbëru làmb yi parce que carrière bi réussir na ko comme ni ko Abou Ndour waxee ci ndam yi ci maanaam euh, sellu sportivité gi nga xam ne mu ngi ci yaramam maanaam hygiène de vie bi yëpp defe naa boo ko amee ngay am longévité carrière te Bombardier loolu moo ko dal tey ci carrière am moo tax mu réussir ko ba yegg tey fi mu yegg moo tax tey yëglikaay bi ñëw ci moom mu dégg loo xam ne ci làmb mbër déggu ko mooy roi des arènes ñaari yoon ñaari xale yi gën a ës ci seen génération wala gën a ës ci làmb tey mu boole leen daan ci benn ngeen muy Modou Lo ak moo tax yëglikaay bi jàpp ne bu dee Lionel ak Cristiano moom Bombardier moo leen daan kon moo lay wan ne kon Bombardier am na lu mu làmboo ci làmb ci gëm boppam xam li muy def teg ko tamit ci aw yoon te loolu am am solo la ci sportif de haut niveau na kenn koo xam ne tamit xëy na jaaxal na ko si carrière mu yoxe Jóob Yékini daan na ko trois fois loolu wan ne sport bu ne am na bête noire mu mel ni kon moom bête noire la nekkul woon ne da ko yëpp doole daan ko wala mu ragal ak bëri ba ak yam ko daan wax xam nga mentalement da ko daan suub ci loo xam ne dañ naan dañuy guerre te bu ñu ñëwee Yékini jaar à côté nax ko daan ko dem yoonam loolu nag mooy sport mais Bombardier daal dañ ko daan jaaraama di wax ne que ni mu duggoon ci làmb rafet na tey defe naa ne carrière am léegi mu jeex wala presque jeex na te itam rafet na MMA bi tamit wane ci boppam exemple la daal ci mbër yi tey rawatina génération bu ndaw bi nga xam ne ñëw ngeen ci làmb bëgg a def carrière xool leen ci Bombardier royukaay bu wóor a na waxam bëriwul te ci li mu war a nekk ci lay ne tout le temps ndax loolu moom defe naa ne ñun ñëpp seere nañ ko ci moom képp kuy dund làmb wala ngay sénégalais te xam kan mooy Bombardier ba tey tamit làmb yooyu gis nañ ko mel ni Mbaye Guèye tey xëy na wax ci journal sunu làmb ci diggante Papa Sow ak Siteu moom daa jàpp ne 50 50 la mooy dox ci diggante ñaari mbir yooyu waa làmb moom defe naa ne moom bu ci waxee war na cee wax su ci waxu war na cee wax ndax defe naa Papa doomam la moo ko yar mu nekkoon ci keppaaram di bëre ba tey mu dem écrim parcelle écrit bu bees kon bu ne cinquante cinquante la am na fu mu ko teg waaye li am solo daal mooy ñaari xale lañ yoo xam ne nii xëy na du ñàkk sax tuuti man boog ci sama xalaat boobu li tax ma ne favori parce que sport tëdde noonu Papa na man ci doon wax tey damay moom favori la par rapport ak expérience ak nombre de combat mu bëri yaa ngi waaye nag Mbaye Guèye moom bu ne cinquante cinquante xel mën na koo nangu ndax itam xam-xamam ci làmb kenn dootu ko nattable ak li mu ci def waa leneen loo xam ne tamit gis nañ ko muy ki nga xam ne nii mooy jàngat bu ama am solo boo xam ne tey journal record xëy na def ko waa di leen jaaraamal di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen yéen internautes yi su ngeen gisee lii ñu di ko def parce que Euh, yàlla moo ñu indil ab dogalam muy feebar bu ñuy wax coronavirus ñu ñaan yàlla mu jóge fi moo tax nag te tamit bëgguñu ngeen di ñàkk xam li xew parce que il faut ñu leen di informer li nga xam ne moo xew ci làmb ji comme ñun 100 pour cent làmb la ñuy def ak Leewtoo TV du mën a ñàkk moo tax maanaam moyen bu ñu mën a def rek dinañ ko jéem def pour jox leen li ngeen soxla waaw ci lu ñu ci man gis nga tey ci salle laa toog sama kër waaw di nuyu sama grand frère di ma dëkkal fii muy Pape ñaan di nuyu soxnaam Kumba Thiaw ak ay doomam yëpp waaw Pape Mbomboy ndax moo gën a moom la gars yi gën a xam di mécanicien nekk fa nga xam ne mooy ca garage mbaytal fii ci Rue 1 maa ngi koy nuyu côté nuyu mécanicien yi nekk foofu yëpp di ko ñaan di nuyu waa bool sama mbokk yi waa ak yaay di nuyu tamit ñi nga xam ne ni ñoom ñooy waa Mbomboy sama dëkk yaay di ñaanal ñëpp jàmm daana Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñoom Serigne Ndour tuuti yaay Sarr ñoom Benzema Balla Gaye Habib Ndoye Youssou Ndoye sama international bi Saliou Ciss may bi ma sol moom moo ko jox di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm barke Yonent bi sallallahu wa sallam